صلاة الذي في كل زار وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر Vada! nga xamanteni mom modi résidence Khadim Rasoul indi len euh, euh li nga xamanteni mom modi quelques euh, témoignages ci li nga xamanteni mom modi parcours euh, Cheikh Bassirou mbake d'ailleurs mom sax mom moy ki nga xamanteni aussi mom modi wayjur bu goru khalif bi fi tok tay di Cheikh Moustapha mbake voilà ñu indi len quelques témoignages rek ci li nga xamanteni mom modi parcours ak jangalem ñu dem rek indi len lolu dal di ñewat ci li nga xamanteni mom modi waxtan wi Oh, oh, oh. ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Bassir Mbacké di doomi Serigne Touba bokk ci ñi nga xam ne ñoo ci mag bokk ci ñi nga xam ne tamit Serigne bi da leen tudde yónnent bi ca turu Mouhamadou feeñ ci seen tur bi mu amee Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Fadil Mouhamadul Amin muy sëriñ Baara moom Mouhamadul Basir mooy waa waajuram tudd soxna Fatima du maan Jóob bokk ci néegub kokki muy ñaari néeg yi nga xam ne ñoo ko seq yëpp muy néegub Mbàkke ak kokki di néegub xam-xam di néegub ay nit ñu baax ñoo xam ne mosuñoo deñ di nangoo li nga xam ne mooy guut xam-xam ak di ko tasaare ak di jaamu yàlla Cheikh Mamadou Bassir mi ngi feeñ 1895 muy année bi nga xam ne ci la sëriñ bi di dem ci géej gi dëppoo màggal gi ñuy waajal mm, feeñ sëriñ bi waxe woon joxe woon turam dinañ ko tuddee Mouhamadul Bassir al Bassir mooy ki nga xam ne mooy mbégte ndax yónent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñ borom yónnee dana koy naa arsalnaaka saa'idan wa mubassiran wa nasira dama laa yónni. nga nek ko xamne da ngay bégale nit ñi moy di leen wax information yi nga xamne moy yu neex ci ko top yalla la suñu borom faye àjjina loolu mooy albasir nasir nak moy ñi nga xamne nangu ñu top yalla timit suñu borom tëkku leen wax leen ku topul yalla timit fa ngay mujj kon koku moy Cheikh Mamadou Basir. mom nak mi ngi bok ci askanu kokki ndax buñ ne kokki rek xel yëpp day daal di dem ci Matar bi Matar Ndumbe nak bo demé ci jasaawu sakorul atouf sëñ touba nee moy mooy ko mu jamonoon teel fi nek kon ab sang la kon njabot gu bayu ko ci mom yayna nyumel ñu mel ni ñu mel ndax kenn mënta niru bokki jàmbur ko gis ay bokkam la niru mom nak bokkam ay tanef lañ ci diiné tanef lañ itam ci ngor ak jom ndax Matar Ndumbe momi mo jur Madu fa Xujja Modou Fa Xujja moo jur Njaga Isa Njaga Isa moo jur Modou Maam Soxna Fall Modou Maam Soxna Fall moo jur Soxna Faati Modou Maam muy waajur Cheikh Mouhamadul Bachir muy waajur Cheikh Mouhamadul Muntaka Njaga Isa moom yi moo jur xarimaam xarimaam moo jur Amintaloo Amintaloo moo jur Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine euh, Njaga Isa moom yi moo jur Awa Balla Kumba Ñuul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 نكون خليفة مكة كجور تك أمينة الله نجاق سيد محمد المصطفى مو أمجا سخنا مريم مي تاوب سيد موسى أكسين باك مدينة aliwa mingi tolon ci la qadra diyallahu anil mu'minina muy gaaf gu baax koo xam ne bi ngay génn da dañ la am nga gone muy góor nga tuddee ko Mouhamadul Basir liggéey ba ñëw fekk muy jàngal xanaa nga ne fu mu toll ñu ne la xad radiyallahu mooy ngërëm gi yàlla doon gërëm woy gëm yi kon kooku mooy Cheikh Mouhamadul Basir. dal na lu jàng ba àgg ci laqad radiyallahu anil mu'minina bi sëriñ bi nekkee sànnoo si lañ ko yóbbu mu nuyoo ak sëriñ bi boobu la sëriñ bi door a gis. laaj ko àllubam fan la tollu mu ko la xat radiyallahu sëriñ bi ni yalla gërëm na ma ñëw gërëm leen bi mu ko waxe lol sëriñ bi dafa dafa moñ xamni ni moy mooy rek nangu jëfum joji mu doon jëf ci tukki ba ndax laqad radiyallahu anil muminina moy sun borom gërëm na jullit ñi lolou mom lay signifier ñuy yar ko ci kanamu sëriñ bi muy doom ji nga xamante nit it moo ëpp lu mu takkoo ak sëriñ bi ndax boobi sëriñ bi jóge Ceyeen ba ñëw njaareem moom daanaka fa féete am na ci ayit xam-xam yoo xamante sëriñ beek ko jàngalal boppam am na ci loo xamante ne nii naari gànnaar yi nga xamante ne nii ñooy ñëw ci sëriñ bi ndax sëriñ bi nitu xam-xam mu xam la fa ko jànge sëriñ bi yar ko mu ràññ lool ci bëgg xam-xam ràññ ko lool itam ci jëfe li xam xamoon ko lool ci gëstu xam-xam ak xër ci xam-xam yii sëriñ bi daa ko jàngal suñ borom dimbalé ko tin ba nga xamné jamono yi sëriñ bi nekk njaareem nga xamné ne fu li ni di jóge di ñëw na mbokki murtaniyay di boromi xam-xam téré yu bari yo xamné tax wa réew mi dawon ko jang suñ borom may ko saas mu gëssoo ko fofu jang ko ci ñoom doon nit ko xamné liñ xamone ci mom moy ab julit la julit la julit nak buñ ko waxé tënk ni lepp moy nit la ko xamné eh, ku manono jaamu yalla la ku doon dimbalé nit ñi la ku manono taxaw ci lu baax ak diko def am na ñoo xam ne sax dañ koy tuddee saatul islah ku daa yéwénal diggante boo xam ne mas naa dégg yàqu-yàqu am ci wala ñàkk a déggoo daana jaral mu sol aw daalam dem seeti leen waxtaan ak ñoom ba ak déggoo am ca doona nit koo xam ne tamit kuy teeloon a jàngale la di yar ci nit ñi ci xam-xam waaye di tërbiya taxoon mu sanc ay daara yu bëree bëri ci ci biir réew mi ngir doon fa tërbiya donga yi bokk na ci am na dëkk bu ñu daax Kayal am na fu ñu wax tiib muy tudde ko tiibu nas ak yeneen dëkk yu bëree bëri poroxaan gee daanaka mooy ki nga xam ne moo ko njëkk feeñal di woote màggal ga bokk ci ñu dundal dëkk ba muy dëkku maam jaara royukaay la modèle la la sonees bi war nañ koo bàyyi xel man damay wax ni ndaw yi fi Sëñ bàyyi ndaw yi Sénégal ñoom lañu waroon a jël teg leen ci seen kanam ndax lan mooy sit bi ñu am ndax sëñ bi bi muy dem ku ne xam na fi yoon wi toll muy loo xamante ne ni da ko doon taxawalal lislaam ngir bëggoon nit ñi doon ay jullit waaye mu gis gàllankoor yi nga xamante ne ni sëñ bi am na ko diggam ak tubaab bi sëñ bi am na ko diggam ak doomi soxna yi am na ko diggam ak ceddo yi bi mi dem mu bayyi fi njabot go xamni ka ca mag ñeen fukki at lam mu Cheikh al mustafa seigne Fallu ñeen fukki atam manki na juroom benn wer ndax seigne mudo ko mag sëñ Baara fanweeri at ak juroom benn seigne basirou mi bi seigne touba dem ci fanweeri at ak ñaar la toll. bari na ci gone yo xamni ne fi mu bo nii boo leen laajee lu ngeen def dañ na literature lay def wax rek lañuy jang te waxi kese mo amul njëriñ jëfa ko ëpp solo ñu itam ñu ni ñu ngi julli waye ragalu ñalla ñu ngi wax waaye waxuñu dëgg selowuñu kenn noppiwut waaye li ñuy wax amul njëriñ loolu nag jeunesse bu ci màgg jàpp man da nga amal njariñ sa bopp bay amal njariñ sam réew bay amal njariñ keneen bu ñu royee ci doomi Sëñ Tuubaa ji nag ak fi mu ko jaarale ak ni mu réussir ci ak dundam ñun ñëpp danañ mën a corriger waat suñu bopp ba yenn faay yi ñu am ñu mën koo jàngat ñu mën ko redresser bu ñu xoolee itam doomam ji nga xamante ne ni tey moom la yàlla teg ci bopp yoon wi nga xamante ne ni lislaam jëmu ko te ak bokk yëbu ko da xam ni wàccaay wuñ ko waajal rek moo tax mooy waajal ko ci xam waajal ko ci euh, ab yar waajal ko ci yitte ci liggéey ba tax na fa tabaarakallaa bokk na ci ñi lislaam di sago bokk na itam ci desiti yariti mag ñi ndax ku raar la ci jamono boo ko dee xool ni muy dunde ak discours yi muy lancé ak fi mu jëmee nit ñi ndax mag mu toll ci juróom-ñett fukki at ak nangam bu dee semb ab université ma ngay gàttanu ndaw yi ëllëgam loolu rekk doy na jàngat. internautes donc loolu lañ leen indiloon ci li nga xamante ni moom moo di euh, jaar jaaruk euh, kii di wayjuruk euh, xalif actuel bi di Cheikh Mountakha Mbacké donc gisandoo nañ ko déggandoon nañ ko mu doon ay témoignages yu am solo yu aajo ci li nga xamante ni moom moo di parcours am ak jaar jaaram ak lii di aussi surtout ay jàngaleem mu am solo lool comme niñ ko mënee déglu rek ci dernier témoignage bi muy wax ni. Euh, ñi nga xamanteni ñoo di jeunesse bi jamono ji war nañ mëna a tirer ay leçons tirer ay enseignements euh, par rapport ak euh, loolu nga xamanteni ni kooku di Serigne Bassirou Mbacké dan nako ko dan nako xamlé donc mu am solo lool len encore remercier ci sen fidélité par rapport à nos programmes par rapport à nos reportages donc relatifs à ce Magal à ce 18 Safar donc de de cette année jaajeufal nañ leen bu baax di leen jox rendez-vous très prochainement ci yeneen genre reportage yu ni mel yasiru bi al jazbul ladi qaada dina salaatul ladi fi kulli wa fi safar hamani